الرحمن الرحيم نون والقلم وما suñu juróom-ñaareelu laaj ci boole ba tey. di wax ñi topp suñu waxtaan yi rek xam ne ñi ngi ci seen YouTube yaatal mbindum alxuraan. ñi ngi waajal concours bu mag bi nga xam ne compagnie Serigne Seck mi ngi koy taxawal. képp ku ci bëgg am ay leeral rek da nga abonné ci chaîne bi lépp loo xam ne information la jëm ci concours bi incha allah dana jàll ci biir seen bi. Serigne Saliou Sall. ñu ñëwaat ci Lama Jam Jam. waaw lamaa Jam Jam Lama Jam Jam. Lama Jam Jam daa mel daa mel ni dafa soriwut ak Jam Jam. lamaa yi nga xam ne duñ leen sidd duñ sidd miim gi hmm. xam nga day jekk ci lammaa mm-hmm. moo tax mu ñu ne lamaa jam-jam mm-hmm. moom itam lamaa jam-jam mu ngi doon sàppo mm-hmm. xam nga pël mooy wax góo didi tati nay joy jeego jee didi jee tati jee nay sàppo sàppo mooy fukk mooy fukk bu ko defee mu ne lamaa jam-jam sàppo lamaa yata fajjaru lamaa yahbitu lamaa yasaqaqu yépp laan mooy baqara waaw mhm. lamaa aataynaakum joogu mhm. lamaa lay wa fi yannahum xóor mhm. lamaa jannihun yaasin lamaa mataahun suxruf lamaa tahkumoona lamaa taxayaroona yépp xalami lamaa xalayhaa nga taariq jërëjëf muy wasamaay wa taariq yi ah. jërëjëf kooku mooy lamaa jam jam mooy lamaa jam jam jërëjëf jigéen nañ ci jekkub dëggal kon ñi ngi ci xaa i tongo mm, xaa i tongo mooy suñu juróom-ñaareelu laaj xaa i tongo waaw xam nga dañ laa waxoon ne xalimun tongu mm-hmm. waxaat la xaa i tongu mm-hmm. tongu maanaam mooy xay ndégal mm-hmm. suñ ko tombee nag xay ndégal lay doon parce que loolu mooy baawu bu njëkk mag ñi dañ daan baawu ba baawu jeex ñu ijji ba ijji jeex ñu door a tàmbali boole léegi nag buñ ne xaa i tongu mu ne xaa i ji nga xam ne tongu la tongu mooy xaalonk fii na laan dalay tàmbalil baat bi dagg ko ci digg bi wax la la la ca mujj liñ ci mag ñi doon jublu hit mooy ki toll ci jàng alquran di gëstu xam-xam buñ daggee baat bi fu baat bi mën a ne da ko wëri jokkale ko ngir jafeel ko ba nga xam ne alquran dina dugg ci sa dënn ba luñ ci tudd rek nga nga nga nga mën a xam fam ne. Mhm. man koo dal di dal di dal di jëli. bu ko defee moom lañ daan wax pièce li tubaab di wax fi ne pièce détachée. Mhm. maanaam fi ne dañ koy détachée. Mhm. buñ ne xaa i tóngu. mu ne fii na laam. waaye xaa i fii na la ci jublu. bii na galaay waaye xaa i bii na la ci jublu. fii na laan bii na galaay. xaa i natin njóogu xaa i nata xafraan. dañoo dagg la ca jiitu. waaw bay jël la ca mujj wax jël ñaari araf yu mujj yi rek fii na laan bii na galaay mhm. natin joogu nata xafraan mhm. fan yaar yëpp a nga xasas xaa i fan yeta raq boo xaa i fan fay sa lësis tan sa yëpp a nga xasas mhm. moo tax mu ne fii na laan bii na galaay natin joogu nata xafraan daal ne fan yaar yëpp xasas jërëjëf ah, xaa i fan xaa i fan la ci jublu ah. moo tax mu ne fan yaar yëpp xasas dëgg ah. dëgg la sëriñ Saliou yàlla yàlla yokk xam-xam bi yàlla yàlla yokk xam naa ñi teewlu seen YouTube yaatal mbindum alxuraan di ay doomi daara mhm. yaakaar naa lii bu ñu ko déggee seen xol dina sedd lool yàlla na yàlla gën a taxaw alxuraan yàlla gën a taxaw ñi taxaw alxuraan yi ndax ñoom ñëpp ci waa kër alxuraan lañ woon yonent bi daf ne woon ñooy ñooy ñooy njabootuk yàlla mhm. gi yàlla jagleel boppam mhm, ahlul quraan yi hum ahlullaahi wa xaasatuhu ahlullaahi daraja la ahlul quran daraja la mhm. xasatuhu daraja la mhm. muy ñetti daraja yoo xam ne mhm. benn bu ci nekk ràngoon nañ ko yàlla leen suñu borom tabaraka wa taala fay lii yëpp rek day duggaat ci aaya ba yàlla waxoon ne alquran ñoo ko wàcce waaye ñoo koy sàmm inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la xaafidun jërëjëf Serigne Saliou kon suñu juróom ñeenteelu laaj mi ngi ñëw ci mawaa ñuul leen. waaw mawaa ñuul leen mooy lan ci boole Serigne Sall. maanaam mawaa ñuul. Mhm. mawaa ji nga xam ne boo bindee boo bindee waaw gi. Mhm. diggante waaw gi ak dood gi. Mhm. laat gi wóodu mag ñi. dood gi day am liif. liif googu nag daa bari yu koy xonqal lu mel ni mawaa siinal xista boo koy doon bind tey bo liif ga day xonq. waaye kii da lay wax ne mawaa yi nga xam ne nag ñooy ñuul. juróom benn la ci alxuraan. ma waa ñuul leen mu ne njeego. njeego mooy ñaar ci wolof mhm. Mhm. nay joy jeego. Mhm. mooy juróom benn. ma waa ñuul leen njeego. xan ma waa dihihi yaar. jigéen la ak jóogu. min bax di ma waa dihihi baa mu njóogu. ma waa xera yaar nax leeg faandaak. fii ma waa tina ba jóob baraan. waaw mooy ma waa ñuul leen. xan ma maxan mawaadihihi yaar jigéen laa njoogu min baa di ma waa mawaadihihi baamu njoogu boo déggee mu ne baamu nag da ngaa dugg ci saar wi génnaat duggaat moo tax mu ne baamu waaw mawaaxira yaar naxleeg faatiri moom la ñuy wax faandaak fii ma waa mawaatina bajju baraan jërëjëf sëriñ Saliou leeral yi am na solo loolu yëpp na jëm ci wàllu boole yaakaar naa li ab tàmbaleel rek mais am na yeneen waxtaan yu jëm ci boole yu bokkut ak yi Serigne Saliou Sall ko bi tey danañ ci dalal boroom xam-xam yu bare bare bari yoo xam ne seen xam-xam daa màcc ci mbir mi li ñu ci jublu mooy lan boole dekkiwaat boole nekk foo ko mag ñi bàyyi woon ndax liggéey bu ama am solo lañ ci def te waree su ko bàyyi muy nelaw Serigne Saliou euh, dañuy def parenthèse rek foofu am fu ñu dugg buñ fa génnaatee nag doog a ñëw suñu mujjanteelu hmm. mooy daaray alxuraan yi mi ngi yokk hmm. ñiy jàngale alxuraan ñi ngi yokk waaye gis nañ ne lii di boole tey lu raar la jëlal naa sax boole bi waaye mbind mi ko jiitu nga xam ne bu njëmee ci bawal tey ku mokkaloon alxuraan balaa ñoo gën a xam ne mokkal gi wér na da ko bind di nga ko beq maas ko sadda ko topp ko bañ xam ne lii lu wér la ñu mën a wax ne kii kat mokkal na alxuraan mbind mi ngi raaf mbind mi li raaf mbind mi moo fi jële li fi jële mbind mi moo fi jële boole yi yooyu nga xam ne euh, aar la woon ci alxuraan mu doon kër la mën nañu wax ne mooy li koy taaral mm-hmm. lan nga jàpp ne moo ko mën a indiwaat ci daara yi tey waaw bi li li ko mën a indiwaat dëgg de lii ñuy def moom ci la bokk ndax xemmeem téef mm-hmm. dana waral lu bari mm-hmm. sëñ Moussa Ka daf ne loo xamut baatin ba doo ko fonk te loo amut pas-pas ba doo ca bokk waaye bi yàlla dogalee ñuy jàng alxuraan di ko mokkal di ko bind njàng mi dafa metti woon boole kook jafe léegi nag comme mooy lu ci bari daf cee suyee moo moo moo moo moo moo moo jeexital ci ñàkk mokkal alquran gi moo jeexital ci ñàkk giy bind ndax boroom mooy day jël doomam yóbbu ko ca internat ngir bu fa mokkalee alquran ci diiram ñetti at yi yii gaa yi digéeg ñoom day daal di dem dal di jàngi français daal di mën a bind facture ñu daal di koy génne yëggu lëggéeyloo ji ko bu ci njëkk bi ko ñaareel mooy ki amul moyen bu doomam commencé jàng ba ba mokkal alxuraan moom buñ ne mokkal na laataa ñu koy seet ba xam mokkal na mu jëlee ko fa defloo ji ko leneen wala boo defi nàngam waaye ala kulli xaalin na mag ña daan jàngi mhm. da daan jàng alquran ba mokkal mhm. ci daara jii mhm. sëriñ bi téyel la alquran ji ba mu wóor la ne alquran ji mokk na nga beq yoon wu njëkk maanaam bind ko ci alluwa te doo ko xool ba alquran jeex sëriñ booba mooy wax ak beneen moroomam sëñ daaraam ne ko kii de mokkal na alquran nangam ak nangam nangam laa ci bëgg mu ne la yot ma ko moom it bu demee foofa day dal di tàmbaliwaat di tariwaat par par robo par robo ba alquran jeex mu tàmbaliwaat par nisif ba mu jeex mu tàmbaliwaat gëndale suy gëndale di gëndale di gëndale ba mu wóor ko ne gagatut sëriñ booba it beqiloo ko boo gisee boole yi bari sëriñ bee da lay bindal robo dina ñaari boole ba nga beqi yoon mu yebalaat la feneen nga demaat foofa beqiwaat fa kooka defaat noonu soo demee ba sa alquran wow nag ñu bindaloo la kaamil. looloo tax ñu naan alxuraan ji waaw ñu bindaloo la kaamil. suñ la bindaloo kaamil kaamil bi dañ koy topp. topp ko ba mu wóor la ne kaamil bii moom wow na. sa sëriñ door laa ñaanal yeewi la. nga dem ñibbi. waaye ba ngay ceeg ñibbi ba da nga xam ne sa kaamil bii ngay bind. da nga bindaat beneen ndax dañ daal bindub kaamil bàyyi ci daara ji bindub kaamil jox sa baay mu yotti sa sëriñ lu bari ci sëriñ daara yi kaamilub alxuraan bi ñu bindoon ca daara yi ñaare ci lañ jébbaloo mhm. maanaam ba mu jébbaloo dafa joxe kaamilub alquran mhm. ñu ne kii day mokkal na alquran mhm. waaye léegi nag euh, mënatuñoo bind ndax coono bi ci mbind euh, sëriñ daara yi attanatuñ ko dong yi attanatuñ ko ndax booy bindaloo gone boo dalalee gone jàng même buy daara internat su dalee ba baa muy fir ijji mënu cee bind waaye waxtu wu mu feree ijji nag war naa mën a tàmbali bind bind bi mu koy bindee euh, pour mu gaaw euh, bu àllarba bu ne ñaari àllarba ca ngoon du njàng sëriñ bi bu àllarbaa ca une bu dong yi wàccee day jël benn benn carré defar tablam bu baax bind ci aw saar wala mu bind ca aaya jox gone yépp alluwa bu mënee bu mënoo su mënul mu jox ñépp kaye ak big ne leen bind leen aaya jee kenn ku ne noo ko mën a bindee am na ñooñ nag dañuy bind benn baat lu mel ni ñu bind bismillaahi daal ne dong yéen ñépp maa leen ci bind bismillaahi fukki yoon ak juróom bu ko defee xat bi lépp ñu def ko ay bismillaahi bismillaahi gu ñëw gën a rafet gu ñëw gën a rafet ba àllarba ji dellu siwaat ñu bind rahmaani rahiimi nga mm. ne bind ko fukki yoon mm-hmm. boo ko bindee da nga ko yët sañ daara bi mu wàññi xool bu njëkk ba bu mujj bi bi ci digg bi bi ci topp lu ci gën a rafet mhm. su ko defee mu xool ne la ah bii de jàmbaar mhm. xoola bu yépp meloon ni bii mhm. bu ko defee daal di la soññ nga góor góorlu ci mu bu jaree neexal mu neexal la bëggaloo la ko ndax alxuraan euh, da nga ki koy jàngale day am xalaat boo mel ni rab boog dongo yi taxaw ak ñoom di gis li ñuy def parce que lu mën a xew daara yi nëgë léegi yi moom beneen affaire la. Mhm. parce que am kër fii am daara fële. Mhm. soo jàngalee ba wàcc dem ci sa kër noppalu ji dong yee képp ne fa moom. Mhm. lu ne mën na caa xew. loolu moom li muy contrôler yar bariwul. am ci ñoo xam ne itam jàng rek lañ séq ak moom. am loo xam ne waajur yi la. ñoom seen doom buy jàng du taq du tilim du jooy du def dara. bu ko defee kooka bu fekkente ne moom dafa nekk ci daara internat. luy yàq daaraam. du ko du ko du ko mën a du ko mën a dégg mhm. day seet daanaka li waajur yi bëgg rek mhm. mu ne ca mhm. te lu boobaa tërbiya moom duutu am moo tax li ëpp ci daara yi fi mu ne boo ko seetloo ay ay ay ay booy Dakar rek lay formé ndax tuutuñ leen jàngal njàng mu mu mu yàgg duñ leen yar duñ leen xamal adduna. foofu itam waajur yi am nañ ci responsabilité ndax dañuy bëgg xale bi teel a jógee ci daara ji. dem jàngi nasaraan. ndax ñenn ci waa yi gëm nañ ni ku jàngul nasaraan say mbir lu bare bare du sotti. dañuy bëgg mu jógee ci daara ji boo ko defee xale ba liggéey bañ ko waroon a tàggat dëgg. du ci xaj. waaw mais bu loola ba bu xewee. dafa am loo xam ne nag. moom man man man sëñ daara. Mhm. sëñ daara yi laay condamné. Mhm. ki la yor doomam ne la lii laa ci bëgg dangay gis kuy fay ñaar téeméer naan la bëgg naa ci nangam bëgg naa ci nangam damaa bëgg mu mel nangam damaa bëgg mu mel na waxa a wax a wax ba wóor la ne lii moom ñaar téeméer yi muy fay attunu ko <laughs> mën na dundal sax waaw mu bàyyi ko mu dem mhm. su demee ñaar téeméer yooyee mhm. bala koo fay ba ta weer deewee bay bëgg deewaat ay waay mu ne la boo demee neel sa baay na indi xaalis mu ne ko sa baay moo bëgg sëñ daara bi moo bëgg xaalis mhm. dong ba dégg na sëñ daara bi bëgg xaalis mhm. indaale ko ci daara ji mhm. lu ko sëñ daara bi mën a waxati sëñ daara bi bëgg xaalis lay xool sax loolu la dégg ci baayam waaw loolu la dégg ci baayam te lim dégg ci baayam da cay jeexital waaye li ma xam mooy nii ma gis ñuy jàngee alquran mhm. ak nii ma gis ñu di ko jàngalee alquran dana masa tumuranke wala ki koy jàngale moom dana masa tumuranke parce que li ëpp ci sëñ daara yi fi mu ne koo ci seen ci tumuranke lay dox ndax li li nga xam ne mooy jariñ maanaam moo koy jariñ moom mm-hmm. ba mën a toog benn béréb pour jàngale mm-hmm. parce que dañoo wax ne sëñ sooy bu danaa wax naan kii jàng day toog mm-hmm. kii jàngale day toog ñoom ñaar ñëpp nag kii jàngaloo leen di tax toog kii jàng day toog kii jàngale day toog kii jàngale day toog waaye nag kii jàngalu nag mooy fexe ba ñoom ñaar ñëpp ñu toog kii jàngalu waaw mooy fexe ba kii jàng kii jàngale yëpp toog ñoom ñëpp ñu toog jërëjëf waaye xam nga sëñ daara bii jàngale te balaa mi dee jot mu wuti dépasse sëñ bi xaju ci ah su ko defee li ñuy li ñuy jàngaloo ñu bàyyi xel ci ne alquran mm-hmm. lu nit am ci àdduna mm-hmm. am alquran ko gën mm-hmm. lu mbirum àdduna rëy rëy rëy am am alquran ko gën te sëñ Touba day waxoon na ne sañ Demba Kebe Demba Kebe mu ne ko Mbàkke mu ne ko jur doom man koo taxaw ba mokkal alquran te defoo ko gisuma lu ko jar mu ne ko Demba Kebe jur doom man koo taxawu ba mokkal alquran te defoo ko gisuma lu ko jar allahu akbar ah. kon ki jur doomam di wa di di ko jàngaloo al di ko jàngaluloo alquran ngir bëgg rek alquran moom ku njëkk sa dënd moom dënd bi dana yaatu mhm. fondement la boo xam ne moom moom moom birig buñ ci teg attan na nga xoo nga xam loolu xam tax nga jël sa doom rek yóbbu ca daara ja ngir ne na adapté wu ci alquran ma door koo def loo jëlee neen mm-hmm. kooku moom sëñ bi mënta jëmee daara kanam jërëjëf sëriñ ah. Saliou jërëjëf ci xalaat bu rafet boobu nga xam ne jëmale nga ko ci daara yi ak sëriñu daara yi jàngal dongo yi euh, dañuy delluwaat anta bi ni'mati rabbika bi majnun